bisimilah bu dee laaj bi nga laaj nag lañ juboo rek loola wér na lañ juboo rek lépp dagan na ko comme dañ ko dañ cee waxtaan ba juboo te moom moo jekk-jekk xàcc ndax bu ko neexoon mu bañ xàcc bi ndax xàcc daganut ci lislaam bu xàcc daal li tax mu dagan mooy nga yëg ne ndekete yoo daa am yëfi tappale yu nekk ci biir nekk nga jaay ma dara ñu dugg ba ci biir ndekete daa am ay tappale yu nekk ci biir waaye boo xoolee fas xool xool ba ne mi ngi nii bëgg naa ko ngeen jaayante njaay mu leer naññ nga jékki-jékki ne man daal damay xàcc lislaam mënu la nga xàcc kon nag bu ko kooka ne waaw man nga ma koo delloo waaye nii lay demee mu d'accord loola lam ko wax rek noonu la am amut amutul benn xàq ndegam moo ko nangu. asalaamaaleykum wa rahmatulah sëriñ Aliou Ndiaye ñoo lay siyaar bu baax a baax ñoo lay nuyu di la siyaar di la yàlla defal la jàmm ak fan gudd ak wér ak wérle ñu ngi jëlee xam-xam bu baax a baax ci sa laaj yi tontu yi ngay dugal duñ ko tardé benn yoon. ñoo ngi lay ñoo nag dafa am sama benn xarit ak benn waay boo xam ne dañoo jotee léegi kii dafa amoon aw fas di ko jaay kii ne man dama bëgg naa fas wi man ñu wax ñu waxaale ba juboo ci pré waa ne da jaay ay xaram jënd fas wi waa ji nag nga nga jaay xar léegi jox ma xar yi soo ma ko joxee dolli ma ma joxla fas yi ñu jubóo ci loola bañ ko defee ab am fukki fan ak ñett ki jëloon fas yi nafas yi daal baaxut da koy xàcc bi mu ñëwee ne da koy xàcc ñu dem ba ba ba ci police ba police ne dem leen ngeen waxtaan ci kër ga bi ngeen jubóo bi ngeen ñëwee ñu bind leen ngeen jàll ba ñëwee ci kër gi waxtaan nag borom fas yi na borom xar yi mën naa laa delloo fas yi waaye nanga xam ne xaalis bi moom ñaar dërëm doo doo ko doo ko jot borom borom xar yi nag bu ñu nee ba ñàkk pexe nangu na loola may laaj nag ba xam xaalis bi waa ji tëdd bañ koo jox àq la ci moom war na koo delloo wala warul koo laa laaj boo ko dugalee ci laaj naa ko diglu incha allah jërëjëf. bisimilah alhamdulilah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj wat sikkim luy atteem ab atteem mooy dafa xaraam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere moo jàngee hadis wala nga jàng lu mel rek ibnu abi sayd alxayrawaani ca mujj ga doon la ko jàngal di ne bu fekkee ne naanu yi mooy li sa. Euh, sa tuñ yi bu guddee nañ ko jemp wàññi ko waaye bu dee sikkim bi nag nee na bàyyi leen ko mu law dinañ ko guddal nit ñi nag ñu bari dañoo defe ne loolu mbirum ibaadul wala nangam déedéet ndigalul yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la bu ñu xoolee suñu mag yi diine yu mag yi sax gis nga leen kenn daw ci wat sikim daanaka koo ci gis rek sëñ Tuubaa nga xam ne ña ko daa gis loolu di ak texe gu rëy ndaa xamoon nañ ne sikkim bu gudd la yoroon kon loolu ndigalul yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam du mbirum ibaadu wala nangam léegi boo bàyyee sa sikkim sax ñu ne diw da ngaa ibaadu wala nangam loolu lu mat a bàyyi xel la yu bari ci yu baax boo ko defee dañu lay askan ne da ngaa ibaadu wala da def nangam boo bu dee jigéen ngay muuru ñu ne da ngaa xanaa kon ibaadu yi dañoo jël lu baax lépp yonent bi sallallahu alayhi moo ko santaane alquran moo ko santaane yooyu mbir yu baax la boo nuyoo nit sax xaw a ngëb tuuti mun la nuyoo ibaadu la te yooyu yëpp yonent bi da koo santaane diine santaane ko kon day mel dañoo bëgg a jël lépp moomele ko ñeneen nañ ciy bàyyi xel ci yu mel noonu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam santaane bala yu sëñ Tuubaa ci boppam santaane benn euh, borom xam-xam sax ci yoonu al imam Malik nee na wa halqu lihiyatin wa sharibin haram ta'dibu man yaf'aluhu ala al imam nee wat sikkim ak naanu yoo ko wër nga di ko wat ba jeex wala loo ci wat rek sikkim dañuy dañuy tere nga laal ca dara nee na ab àtte mooy dafa xaram te ku koy def sax bu fekkoon dañuy àtte woo àtte bu lislaam bu ko nit ki yàggee def imaam dana ko jël yar ko bu ñu waxee mooy ka ka yor mbirub jullit ñi ka ko yàgg def da dañ koy dañ koy war a yar wallahu alamu laaj bi ci tege mbokk mi laaj tatouage tatouage yëpp a xaraam moo xam bi ngay dessin la moo xam bi ngay tampon sa yaram bi nga xam ne du dañati yëpp a yem benn baaxu ci du yëfi ay du yëfi jullit muy benn du yëfi sax nit ku baax as gor ku ko defoon tey jii dem sab sëriñ rek danga sol lu rëy ngir nëbbu ko lu tax nga di ko nëbb mooy xam nga ne baaxul lépp looy def di ko nëbb rek nga ne boo sañoon kenn du la ca fekk kon ngay xam àtte ba dèjà lépp lu yiwut baaxul rek lislaam gërëmu ko waaye ba gën a garaaw nag mooy ba ñuy des ci yaram yi nga xam ne du dañati boobu moom bu bona bona bon la mu bona bona bon la yooyu ku koy def far nga koo arrêté te tuub ba ngay dessin nag moo gën a oyof waaye théorie yëpp lañu yëpp lañu tere mu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj assurance ñoo xam dañ lay assurance ne la sa jur gi bu ci dee ñu fay la bismillah wala sa oto bi bu yàqu ñu fay la wala ju ko nuru ba tey yooyu dafa xaraam lislaam nanguwul assurance kenn mënta assuré kenn yàlla rek moo mën a euh, yàlla rek moo tabarkàlla moo yor mbir yi assurance foo ko fekkee rek naxante dana am lekk lekk xaalis lekk alali jàmbur ci caaxaan xam nga ku yor ay juróom nga naa ko sa jur gi kaay kaay defay nangam bu dee wala bu defee nangam loolu lu mu ci doon doo ko bàyyi mu yor juróom rek loo lu ci jël assuré bàyyi ko mu yor juróom rek bu ci amee bénéfice jël bu bu fa dee mu xam ne yàllaa ko rey maanaam bu lakkee mu xam ne yàllaa ko lakk mu muñ waaye naan la kon day mel dogal yàlla amatut bu fekkee nit ñi léegi dañuy fexe ba sa alal jëpp lu ci dogal yàlla am rek ñu ne dañ ma war a fay <clears throat> ak ka ko war a fay moom lu tax mu war koo fay lu ci yoonam. loolu yëpp xeetu eh, jëfa yahud yi ñoo indi xeetu tappale yooyu fexe ba nit ki di carte te du ko yëg ak fexe bay lekk sa xaalis te doo ko yëg maanaam léegi bu fekkee ne waa ji nee na la léegi da ngaa yor ci misaal ngay nga yor say xar mu ne la léegi da ngay ñëw nga assuré ko nga ne ko nu may def mu da ngay dagg assurance 2000 francs nga ne ko baax na nga dagg 2000 francs di dagg bi 2000 francs di dagg di dagg ci misaal ba am ñetti at sa xare benn déewu ci dara sikku ci léegi sa alal jooju muy lekk fu mu jaar fu mu tegu lu tax mu de lu mu sañ koo lekk ci ay caaxaan la amul dara jëndanti wu den jaayoon da koo lekk ci caaxaan rek naka noonu bu yàlla bu yàlla dogalee nga dagg wenn weer ñaari weer ba ñaar ñu teg ci ñaari weer xar yëpp ak lakk am fa xar yëpp dee mu war laa fay ñaata la lay fay benn xar mu nekk fukki ju nekk nangam muy alal ju bari joo xam ne léwut ndax yow sa xar mi kenn lëkku ko dogalu suñ borom la kee jekki-jekki ñëw ne moo lay fay loolu fu mu tegu kon jëmmi assurance ci boppam dëgganut waxantuma ak nag li waa ji laajaat naan ay dëgg leen topp bi bëgg de duñ la fay jëmmi assurance moo dëggun da nga cee bañ a bokk du def lu mel noonu lépp lu ko lislaam tere tamit jur riba rek danga koy bàyyi boo ko bàyyee nag doo nekk di sonat naan ah, bañ ma waree fay dama caa sonn ah, fayuñu ma déedéet dañ laa warta sax fay nag da ngaa warta bokk ca loola bay séentuñu di la fay bu dee assurance oto yi nag boo nekkee ci dëkk boo xam ne ñoom dañ ko def luwaa nga ne mënta ñàkk suba kon nga def ko ngir ñàkk pexe ma waaye bu ko def ngir jéem a di ca bëgg dara am loo cee wut déedéet bal da ngaa war a tuub sax suñ borom de lii xam naa ne jaaduwut waaye fii ma nekk comme jëfandikoo nañ lislaam ba su ma ko deful mu andi dama koy def rek ngir ngir sama dund hmm, ngir ñàkk pexe ndax suñ borom képp ku ñàkk pexe rek mu jéggal la waaye bul ko def sax ngir di ca topp ak di ca wut alal ak yu mel noonu déedéet incha allah ndax boo doon dawal oto te defoo ko léegi ñu arrêté la wax dëgg yàlla andi la ay jafe-jafe rawatina bu dee réew yi nga xam dañoo fenk dañoo fonk wàllu luwaay kon nga xam ne moom la la lislaam di jéggal rek waaye lislaam taxul mun la dagan na déedéet dégg na kon bul ko bul ko def ba di ci séentu ak fay guñ lay fay wallahu aalam bu laaj bi ci tege mbokk mi euh, mbokk mi laaj ne daa gis koo xam daal buy julli du siggi rukon du siggi sujjóot maanaam daal bu rukon ay day siggi tuuti rek dem sujjóoti bu sujjóotee tamit day siggi boppam tuuti rek sujjóotaat kook la muy tekki mooy julleem ya dara baaxu ci ndax mi ngi bàyyi ay farata ndax siggi rukon farata la siggi sujjóot farata la lenn ci suñu yaay ak suñu maam yi nag moom tàmm nañ ko lool tàmm nañ ko lool bu ñuy julli buñ bu ñu rukon ak ñu bari sax da nga gis mag yi jëmm di ko def da nga gis ñu wax koo xam ne buy julli farata moom dana ko julli julli ko jaar yoon waaye buy naafi la day sëgg rukon au lieu mu siggi ba taxaw day siggi tuuti dem sujjóoti loolu boo ko bàyyee bàyyi nga farata wala wala koo xam ne buy sujjóot day tegale ñaari sujjóot yi taf taf rek la koy def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay daa ñëw ci jàkka ji jullee yonent bi di ko xool mu jullee nii nii waa jëlaajo noonu la doon jullee bu rukkoo yi day xaw a siggi tuuti rek départ dem sujooti bu sujootee day siggi tuuti rek daal di dóoraat beneen sujoot ba mu sëlmalee ñëw di nuyu yonent bi yonent demal nga julli xam nga ne léegi nga def dugg mu julliwaat defaat ko noonu yonent bi ne ko demal nga julliwaat ba ca ñetteel mu ne ko moo ne man damaa xamul nañu jullee kon teg ma ko leeral yonent bi ne ko boo rukkoo xadis bu gudd la waaye mu ne ko boo rukkooxee da ngay siggi ba taxaw ba bi ngay jàng ni nga ni nga taxawoon nga taxaw jonn ci misaal daal nga taxaw taxawaay boo xam ne mën nga faa wàññi ne benn ñaar ñett ñett yu yeex daal mën nga ko wàññi ca taxawaay ba nga doog a dem sujjooti boo sujjootee da ngay siggi ba toog jonn xam ne daal su ma la doon nga faa wàññi benn ñaar ñett yu xaw a yeex ci sa xel waxuma nga di ko def nag ndax njóobee ni moom. dañoo yeewut boo leen misaal du tax ñu xam ne kii day misaal waxuma nga def loola waaye daal nga taxaw fa ab diir rek laa da bëgg a wax kon boo sujjootee nga siggi ba toog ne tekk doo ko dem sujjootaat yooyu nag boo ko bàyyee bàyyi nga farata mbaka Sëñ Tuubaa ba muy lim farata ya boole na ko ca wasaaminu sujjoodi summa taasiu arafu minhu qad hadaani shafiu incha allah andi woon na ko wallahu a alamu sawaab kon kooku boo ko mënee laabiire nga laabiire ko incha allah xam ne ak julle ma nga yàqu ci ñàkk xam alhamdulilah bu dee laaju mbokk mi ci tegu mu ne ku dugg ci jàkka fekk fa ay nit ndax danga leen a war a nuyu waaw saa yoo fekkee sa mbokkum jullit day te mën ngoo nuyu rek nuyu ko ndax sunna la su dëgër moo xam jàkka la moo xam feneen la bu la neexee nag bu dee jàkka la xam nga jàkka dañ fa taamul ay wax ju bari taamuñ ay wax ju bari dafa am bu dee jàkka boo ñëwee mën ngaa def sa tahiyatul masjid doog wax asalaamaaleykum même imam bi xutba ajuma sax bu ñëwee dañoo bëgg mu nuyoo imam bi bari dañ koy def bu ñëwee bala ñoo toog day ñëw ne asalaamaaleykum nuyu waa jàkka ji kon nuyoo moom heure boo gisee sa mbokkum julli rek da nga ko ko da ko ko war def yonante bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu ngeen bëggee di bëggante bay boo ngeen di nuyoo rek fu nit gis sa moroom julli rek di ko nuyu incha allahu rabbi bu dee ñenn ñi nag dañ naan da ngaa mën nuyoo te fekk lool la yonante bi sallallahu alayhi wasallam santaane kon gis nga nit ñi aada ji ni mu demee ba di leen yàqal seen diine kon daal boo duggee jàkka mën nga ne asalaamaaleykum jërut nag ngay ku nekk nga di ko jox loxo déedéet boo ne asalaamaaleykum baax na boo defee sa ñaari rakk nuyu jàkka ji doo ko nuyoo ne asalaamaaleykum ba tey baax na mbokk mi laaj ku dugg ku dem ajjuma maanaam ku julli ji ajjuma ndax boo demee da ngay def tahiyatul masjid rek toog wala boo defee tahiyatul masjid yi mooy yaari rakk yi ngay nuyoo jàkka ji ndax sañ kaa naafilawaat ah waaw sañ kaa naafilawaat tahiyatul masjid bi la tahiyatul masjid yi moom mënta ñàkk yonent bi sallallahu alayhi wa ne isa daxala ahadukum ahadukumul masjida mu ne falaa yejlisa xataa yarkaa rakaatayni wala xataa yusalliya rakaatayni bu mu toog lu dul daa nuyu jàkka ji ñaari rakk bu defee loolu ba noppi nag incha allah te dara tënkoo bu ko neexee mën naa jóg naafila naafila yu ko neex ba keroog imam di ñëw sax bu la neexee mën ngaa jóg daal def say naafila boo imam xasee ba dugg si rek nga arrêté say naafila toog bu la fekkoon ngay naafila nag bu ko dagg continuer naafila ga mu àgg rek même bu imam euh, dikkee nga xam ne ci yoon al imam malik ngay jëfandikoo nga ne ñoom dañuy bañ imam toog ngay naafila waaye yow da ngaa tàmbali woon laataa imam dugg si nga tàmbali woon da ngay continuer naafila a dagg wallahu aalamu laaj bi ci tegee mbokk mi laaj kuy julli di ñaan na daa mel ne taaya yu mujj sopp nañ boo defee ataxiyaatu ba mu jeex nga def allahuma salli ba mu jeex nga ñaan bala ngaa sëlmal mën ñaan gi ndax manees na sañes na ko def ci làkk wa nga dégg waaw waaw mu de ci yoon imam Malik bi sañ sañ nga ko la gën nag mooy arab waaye ku ko man am ñu bari dégguñu arab dañoo mel ne man su nag sañ nañ ko def ca làkk ba nga xam ne moom la ñu moom la ñu dégg incha allahu rabbi la gën nag mooy bañ koo tudd ci sa làmmiñ waaye nga ngay ñaan ci sa xel la nga bëgg boo ko tuddee sa làmmiñ nag ayut incha allah la ngay ñaan nag mooy la nga soxla rek yow daal yaay jàmbi jàkkaarloog sa borom mi jeexloo dara xoolal la nga bëgg rek saxaaba yi nee nañ ba ci xoromus cin sax dawuñ ko fàtte dañ ko daa ñaanale ndax yàlla mu am am na lépp bul xeeb bul xeeb dara am na ñu nanguwul nag ñaan ci saw làkk waaye nag dagat na dara nekku ci incha allah mu dee laaj bi ci tegu mbokk mi laaj jëkkër joo xam ne day saaga soxnaam luy atte bi ak ndax soxna sa sañ naa fayu waaw soxna si duñ na ko sañoo fayu déedéet waaye dañ naan ko jommal jommal jommalal sa bopp di fayu olof yi ñoo wax ne bala mbaam wéqee nga wéq ko du yéen a yem loolu olof lépp ñàkk fayu ko du da nga amul sañ-sañ ah kay kuñ tooñ sañ ngaa fayu waaye nag da jommale sa bopp loolu mooy kii moom lu ñaaw la am ba di ko wax man jommale naa saa bopp di génne sama làmmiñ wi aw saaga sëñ Tuubaa nee na ki gën a bon ci nit ñi mooy koo xam ne day ŋàññante ñu koy wax lu bon muy tontu lu bon loolu baax loolu baax mu ne wa charru naasi man ya wa shibaaba ki gën a yées si nit ñi mooy koo xam ne day saagante sunu mbokk apparenté chauffeur yi léeg-léeg nañ ñu jéggal ci ña koy wax waaye dañuy gis ñoo xam ne dañuy tàmm saagante lool ngi léeg ko saaga apparenté bi dagg aw saaga wala sax ñoom apparenté yi seen biir ci ña koy def ñuy saagante boo waxee ñu ne dañ koo séq nga ne kon kooku tegul fenn yaayam wala ay waajuram ku dem ba jël sa yaay teg ko fu ne da nga koo séq kenn mu de sañ ko wax lu ñaaw nga ne da ngeen koo séq kooka dayob yara di ko fa la kon soxna si duñ ko wax ne ko sañoo ko déedéet dañ naan ko jommale ko sa bopp jommale ko sa bopp amaa jëkkër ji nga xam day saaga jabaram loolu du dara lu dul ñàkki teggin ñàkk teggin rekk la ndax jëkkër moom wala fii dañuy faral di wax ne jëkkër sang la sang du génn ci gémmiñam lu ñaaw dañoo jël jigéen gi indi ko sa kër yow góor gi ne la dénk dañu la ko yaral ñu ko defaral ñu ko defal ñu lu baax yow mi ko waroon a yar war koo jàngal éducation bu baax nga wëlbati ko di génne ci sa làmmiñ lu salte kon kooka mënta yar la muy tekk mooy kooka matut lam xamut lim doon rawatina ñaareel bi nag jigéen ji nga xam ne dañ la ko may yaayam ji nga xam ne moo ko jur jur ko nàmpal ko sonn ca ba màgg ba nga gis ko bëgg ko ñu jël ko may la ko nga yaa yaa yaayam jooju na nga wëlbati ko di ko daggal ay saaga moom loolu yara di ko ak ñàkk teggin bu dee magit mag moo xamadi xamadi ko rek moo koy def ndax am na góor ñoo xam ne dañuy defe ne seeni soxna sañ nañ lépp daanaka ay jëppewuñ leen sax nit dañuy defe ne sañ lañ leen a saaga te ku ci saaga woon sa soxna moo fayu ëtt tukki nga xaatar xaatar rëy bay bëgg a dee nag defe ne sañ ko ko fekk sañoo ko ni ko bañ a rek la sëñ Tuubaa waxoon rek wa kun maa naasi jamii'an dahraka kamaa tuhibbu an yakun maaka ni nga fonke sa waajur woowu ba moom bu fay woon ngay raaj a rey sa bopp defe ne adduna tukki na waaw lu tax moom nga di ko saaga da nga defe ne saaga méttul méttul ci moom kon la sëñ Tuubaa waxoon ne seen soxna yi bu leen jàpp bu leen defe ne ay jaam ay jaam lañ lu ñu leen jox seeni nawle lañ kon nag ki ñu jox nit ne ko yaral ñu ko defal defal ñu ci moom jikko ju rafet bu fekkee moom moo yor jikko ju ñaaw rawatina ñaawaay bu toll noonu waxuma la sa jabar waaye sa doom rek même xale bi nga yar war a dégg ci saaga waru koo dégg kon loolu la muy tekki rek mooy ku matut la mu doon ku matut kilifa ku ñàkk teggin koo xam ne day mel ne eh, mag mu yaradi ko loolu lay doon kon nag mag mu ko tàmm di ko def premièrement war ngaa yar sa bopp ndax yow kilifa nga koo xam ne bu doon laaj dana ana ana sa kilifa bu ñu doon jiite julli ne la jiiteel te yow foo toll di dagg ay saaga di tafaare loolu ñàkk teggin rek la nag ñàkk teggin nag ci xale mën nañ koo yar waaye bu dee ci mag nag day jéggi dayoo. wallahu taala alamu sawaaba mu ne ndax kon saaga wi dana tas ab sëy déedéet jëmmi saaga rek moom du tas ab say waaye bu doon ci jamonoy attekatul islaam soxna si bu ko yóbboo ci attekat ba attekat mën naa àgg ci tas sëy ba bu fekkee neex na soxna sa bu ko yóbbee ndax ki lay saaga moom joxu la benn warma wurmaa lu la wurmaa lu sa ndey jëla jur ak sa baay sa ndey jëkk jëla jur nga ne ñooy ay gorom ñoo ko dimbali ba moom mu mën a am soxna tegu leen fenn ndax bu leen tegoon fenn du da jël ay saaga di leen ko di leen ko di leen ko daggal loolu ñàkk xorma rek la kon mën naa àgg ba ñu tas ci ab sëy waaye nekku ne nit bu saakaa rek ñu ne ko tey sëy ba tas na déedéet waaye mën nañ ko àtte nag ba keroog ñu àgg ci ñu ñu tas sëy ba ngir loola bu fekkee soxna sa bëgg na ko bëgg nañu tas ko wallahu taala alamu sawaaba alhamdulilah mu dee laaj bi ci tege mbokk mi euh, laaj ne ndax daa am julli goo xam ne saxaaba yi dañ koo njëkk a julli yonante bi sallallahu alayhi wa sallam laaj bi xam naa nuru cax te ñun duñ tontu ay cax kon mbokk mi na ci bàyyi xel kuy laaj da laaj laaj bu leer rek xeetu cax moom duñ ko tontu waaw bu dee li mu bëgg a wax xëy na jullik la bëgg wax te jullik ajjuma sax d'accord nañ ci ndax am na borom xam yu jàpp ne julli ajjuma ñu ngi ko farataale eh, Makka mel ne kon dañoo bëgg wax ne yonante bi julli na ko waaye daal la gën wér mooy jullik ajjuma ak fuñ ko mën a farataale tamit yonante bi saxaaba yi ñoo ko ko njëkk a julli yonante bi sax ndax sart yi nga xam ne mooy laaj julli ajuma boobu dafa dëllu yonente bi salaa salaam ndax boobu yonente bi salaa salaam mi ngi màkka te fekk ne saxaaba yëpp gàddaay nañ dem madina a munawara kon amul mbooloo mu muy mu muy àndal di julli daanaka Seydina Abubakar Siddiq ak Seydina Ali ak ak al mustadaafuuna ñi néew doole bu mënuñoo dem te booba màkka metti na lool ndeysaan ñu di leen fitnaal duñ nangu ñuy dajaloo di julli yu bari duñ ko duñ ko julli yàlla na yàlla fayal ñu leen ñoom saxaaba yi radwanullahi taala alayhim yàlla seedeel ni leen ci alquran ne radiyallahu anhum wa radu anhu yàlla gërëm na leen mu ñoom gërëm na yàlla ay yoon yoon yoon yoon am na fu mu teg sax wa aadalahum jannatin tajri min tahtiha al anhaaru yàlla digg na mi ngi leen di xaare àjjana yoo xam ne ay jardin ñoo fa nekk ay ndox di daw ca suuf ah, kon nag bi yàlla farataale ajjuma yonent bi sallallahu alayhi wa daa sant kent ci kenn ca jullit ña rek incha allahu rabbi ne ko kon jiiteel jullit ñi foofu ngeen julli ajuma ndax yàlla farataal na ko ci yéen yéen sart yi daje na ci yéen mbooloo ngeen dajaloo ngeen nangam man man sart yi amul ci man soo dee mu julli ñi tàmbalee julli ajuma foofu nag te fekk bi tàmbalee ko ko kon xëy na loolu la bëgg a laaj xëy na yonent ba sax ba mu demee ba ca yoon wax ah, ba am sart yi moom mu am ñu mu àndal julli avant muy àgg Madina fala julli ajuma jëm njëkka a julli jumaa jëm ko julli woon sax defe naa masjidul jumaa lañ ko tuddee woon Euh, ginnaaw bi waa Arabie Saoudite dañ koo mujj toj ndax ne nit ñi dañ fa daa dugg di siyaare di laal miir ba ak yu ak yu demee noonu ginnaaw bi lañ ko toj wala ku li xal moom jërutoon toj nag wax dëgg war mënoon nañoo fexe ba leeral nit ñi rek ne leen lii baaxut nangam nit ñi bàyyi ko moo gën toj gi ndax jumaa ju historique la ndax foo xam ne yéen ñaa yonante bi fii la njëkk a jullee ajjuma loolu lu rëy la lu ñu fàttaliku la ci wàllu culture ak ci wàllu yeneen wàllu taarixu islam waxalaa kulli xaal kon xëy na julli googu la mbokk mi bëgg a laaj hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wallahu taala alamu alsawaab wa ilayhi almarjiu walmaab bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin nabiyina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta alcaliimu alxakiim wajcal kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida bismillah nu fas yéene dimbali ko sunu borom ci jéem a tontu laaj fi jot rot ala mazhabil imaami Maalik rahimahullahu taala ak ci dégginu borom xam-xam yi ñu doyloo seeni wax mu dee laaj bu njëkk bi mbokk mi laaj dañoo nekkoon mbooloo mu bari lu mel ne nekk ci aw xew mbooloo mu bari lool waaye ba ñuy julli julli ka dafa jaxasoo ba am ñoo xam ne daanaka bàyyi nañ ab ràkka ndax xëy na jottalikat bi daa jaxase na muy jottalee imaam sujjóot ba war a jóg jottalikat bi ne rabbana walakal hamdu wala sami allahu liman hamida rabbana walakal hamdu am ñoo xam ne dañoo demaat dem sujjóotiwaat nga xam ne kon day mel ne bàyyi nañ daal ab rakk daanaka ndax bu fekkee ne bàyyi nga jóg taxaw jàngat fa fatiha rukkoo war sikiru ko loolu lépp nga tëb ko li muy tekk mooy bàyyi nga ab rakk mu ne moom nag euh, ba julli ga jeexee dafa fay rakk boobee def baax da salaama baa moom de noonu mu def rek la noonu mu def daal noonu la mooy julli gi daal ak lu mën a jaxasoo bu la wóoree ne imaam bi yow moom tëb nga ab rakk boo xam ne julli woo ko donte imaam moom jullee na na mu war a jullee kon rakk boobu da ngay jàpp ne rek baaxut ba imaam sëlmalee incha allah da ngay jugaat andi beneen rakk moo noppee nga taaye sëlmal incha allah rabbi ah, daal di def sa baada salaam kon daal noonu ma def moom noonu la xëy na mbooloo mi nag moom léegi day bëri rek ndax mbokk sax wax na ko nee na ñoo xam ne am na ñoo xam sax amuñu woon jàpp dañu dañuy julli rek ñu raaxaloo dem julli la muy tekk rek mooy ñooñu lañ doon def dara ñuru leen ci dañuy sal rek mooy xëy na mbooloo mi ñu ngi julli ma ànd ci julli xëy na ruus naa toog loolu nag du ngir yàlla waxala kulli xaal koo xam ne daal ànd nga ak imaam nga juum am lu mat ab rakka wala farata bu la rëcc waxuma la ab rakka waaye benn farata dong bu la rëccee kooku moom rakka boobee na la wóor na bi imaam euh, sëlmalee rek faaw war nga koo fay wallahu taala alamu sawaaba laaj bi ci tege mbokk mi laaj luy koo xam ne dafa xaru ndax dees na ko sanga dees na ko solu ci armeelu jullit ña képp kuy ab jullit rek bu faatoo danañ ko defal li ñuy defal jullit ak lu man a def nag lu mu rëy rëy rëy daal maadaama moom jullit la duñ xool bakaar ba mu doon def ba ñu ne duñ ko jullee déedéet kuy jullit rek danañ la jullee danañ la denc ci armeelu jullit danañ la defal lépp bàkkaar boobee nag ñu bàyyi ko diggante ak yàlla te sax nag ñaanal ko suñ borom jéggal ko ko ndax suñ borom ku bari yërmande la doonte nag yonent bi sallallahu alayhi wax na ci ay xadis yu bari yoo xam ne suñ borom da ciy dikk mbugal ki nga xam ne dafa rey boppam ba wax na sax façon mbugal ma ko yàlla nar a mbugal xanaa ñuy ñaan yàlla rek yàlla jéggal leen ndax yàlla buur bu baax la waaye daal loolu danger la wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp inna allaha kaana bikum rahima mu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj ne dañ fay jàngale woon ne koo xam ne musaafir la bu fekkee dafa nekk ci lu mel ne oto wala yu mel noonu bu ko wóoree ne bala mu àgg fa mu jëm muxtaar ma jeex nee na sañ na koo julli déedéet mbokk mi xam naa ni nga dégg laa baaxut lool moom waxaguñ ko ndax loolu mënta nekk kon loolu waxuñu waxuñu ne musaafir sañ na loolu ndax man li muy laaj mooy daa jàpp ne musaafir sañ na loolu léegi ku dul musaafir nag nit ki koo xam ne rek dafa dugg oto euh, oto bi xat mu jël lu mel ne noddu jullik timis nga xam ne muxtaar mi daa gaaw mu ne bu ko wóoree ne bala mu àgg fa mu jëm muxtaar mi jeex ndax dana sañ a boole ni nga xam ne boo doon musaafir dana ko sañ tontu li mooy ñoom ñaar ñëpp kenn sañu ko ci kenn sañuta jekk-jekk di julli ci yu mel ay oto wala yu mel noona fekk wóoru la ndax booy àgg waxtu wi dana jeex bu ñu waxee waxtu wi rek mooy daroori je ci boppam waaye musaafir mi euh, muxtaar mi kese kese moom du tax nga sañ a jekk-jekk jullee noo warta jullee ko moom daal moo xam musaafir bi moo xam kii dekkul musaafir ñoo bokk atte bi saa yoo xamee ne julli jot na te mu fekke la ci oto <clears throat> amoo menn pexe oto bi mënta taxaw wala nangu may lay tax nga sañ a julli ci oto ba mooy mu wóor la ne ne waxtu wii ngay julli bala ngaa àgg ba oto bay wàcc ba ngay mën a taxaw di ko julli waxtu mu dana jeex muxtaar mi daroore ji yépp dana jeex waaye bu fekkee ne booy wàcc dana fekk daroore ja des sax musaay fi rek képp ñëpp ci yam da ngay xaar ba wàcc julli ko ca daroore ja waaye doo sañ a jekk-jekk julli ko di toog aka yu mel noonu déedéet na xaar ba wàcc julleeku indi taxawaay ak lépp kon loolu musaafir rek muqiim ñoo ci yemoo képp-képp kon timis gi doone rek moxta nodd nañ timis te moxtaarim daa gàtt naa gaaw jullee ci oto ba di di junju déedéet timis moom daa gudd ndaa nag li fekk fajar judagut yaa ngi ci timis yaa ngi ci timis yaa ngi ci gee kon na ngay xaar ba àgg fekk waxtu wi jeexagut yaa ngi ci daroori je boo ko jullee jullee ko ci waxtoom nga jullee ko na nga ko war a jullee wallahu aalam